étoile jamono ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen di ñaanal jàmm kontaan ci dellusiwaat ci antenne étoile jamono saa su nekk niñ koy defee rek bu xew-xew amee ñu leen di wax nii wéy leen di abonné chaîne bi chaîne d'actualité la tey nag kenn ku nekk gis na li xew fii di Sénégal rawatina dëkk boobu ñuy wax kawlak muy borom ñaari tour yoo xamante ni dañ ni borom ñaari tour la wala góor jigéen comme niñ ko mën a waxee. bu ñu lakk boo xamante ni dafa génn àddina ba mu am cinq jours ñu sulli ko lakk ko ci noonu nag la ñuy jokkoo ay borom xam-xam fii euh, laaj leen lan la ci diine wax ndax mbir mi noonu la war a demee am déet ñu leen di wax ni rek wéy leen di abone chaîne bi chaîne d'actualité xaaral ñu nag ñu ñëw tijji ligne bi yaakaar naa ni euh, am na ñu bëgg a dugg si bu ko defee rek euh, ñu toppal leen li xew Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbokki étoile jamono ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu defal leen jàmm te defal ñu ko allah di kontaan bu baax eh, ci groupe bi ni muy doxee eh. eh, macha allah mbir mi moom doy na lool lool lool sax na insha allah ñu ñëw rek indi suñu xalaat ak suñu intervention insha allah. Hmm. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow Oustaz Ndour depuis Mbacke jamono ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. ñu ngi lay fay nuyoo. di leen ñaanal jàmm ak xéewal di ko sakk ci yéen. Ah, di wax ci vidéo bi rek macha allah. yéeme na lool lool lool lool lool lool lool. foo ko natt daal romb na ko. waaw ah, foo ko natt rek romb na ko. ayca yaa Saliou Ndour dañ lay bàyyi nga dellu si Mouhamed Bachir yaakaar naa ne gis nga li xew Kaolack euh, gis-gis ban la ci diine am ndax nii la waroon a demee euh, Mouhamed Bachir ñu ngi lay déglu. asalaamaaleykum euh, wa rahmatulah beneen yoon ñu ngeen leen di jaajëfal du baax a baax macha allah jili li nga wax am na solo lool li nga wax am na solo lool ndax lépp loo gis si àdduna rek procédure la. Mm-hmm. mbir mii nag nekk na mbir mu yéeme yéeme man nag moom si li nga maa ngi si li ma musuma dégg man personnellement musuma dégg ne góor jigéen taal nañ ko góor jigéen boo xamante ne ni faatu na ne taal nañ ko man musuma ko dégg man personnellement musuma ko dégg te tamit li ma doon dégg ci li nga xamante ne ni moom la euh, taataane ci ay boromi xam-xam waaw ci ay téere su ma juumul ci li ma jot a gëstu li ma li ma dégg de ak liñ ma jàngal ak liñ ma xamal mooy ne góor jigéen su fekkente ne faatu na kenn du ko suul si sëkk yi nga xamante ne ni foofu lañuy suul julit ñi. Mm-hmm. benn ñaareelu buñ koy suul dañ koy suul ci àll wa foo xamante ne amaana sax kenn du ko suul ci tool. ndax euh, ragal nañ mag ñi dañ daan wax ne góor jigéen boo ko suulee si tool soo moytu tool wa si boppam dafay gedd mm-hmm. ñaar ñette buñ koy julee aussi du imam rati bu dëkk ba mom mokoy julle manam man nañ xol ci nga xamante ni ko xamante war nako meuna julle rek mu julle ko ci lima japp ci lima jang ci lima xam ba mbir mi nek na mbir mu doy war su tamit dem nañ ba sul ko buñ ko sulli won si sama xalat jàpp naa ne li gënoon li nga xamne moy li gënoon diggu doomu moy ñu laccé borom xam-xam bu mandu mu joxe ci ate mu joxe ci àtte bu ci manam mu joxe ci mais pas que ñuy dem di tal té japp na né sax bu démon bay joxé até aussi gannaaw yërmande borom bi subhanahu wa taala yaatuna borom xam-xam bobu non amana mu ne leen ko sul fi nañ ko sul sa sa sa fu génn dëkk bi lool sax manam ci bërepp bo xamanté ab ala lay doon yu démé non benen bi ci top moy su fekkenté ay sanction warna am du ay nit ñu ànd ak seen xadar ñom ñoo joxé sanction diine moom mooy joxe àtte bi diine moom mooy wax ne lii lañ war a def ci kii nii loolu nag nekkul man maa koy def nekkul waa groupe bi ñoom ñoo koy def mhm. mais loolu dafa am commission spéciale comité spécial ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc si wàllu woowu si fànn woowu noonu ñoom ñoo ci joxe li nga xamante ne ni moom mooy atteg borom bi subhanahu wa taala ak yonentaam sallallahu alayhi wa sallam waaye aussi bu tegu ci maadute ndax lépp loo xamante nit mu ngi jóg di ko def ci xadar amaana su demoon ba toog mën na deme neneen beneen bi si topp aussi mooy bërëb biñ ko defee euh, dama jàpp ne ña doon def film bi mm-hmm. euh, rusuñu ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu noonu ñu doon filmé rusuñu ña nga xamante ne ñeneen ñi nga xam ñoom lañ denc ci sëg bi ñenn ñaa ngi yuuxu ci bërëb bi bërëb boo xamante ne ña fa tëdd la ñu soxla moom mooy ay ñaan ña fa tëdd la ñu soxla moom mooy ñu ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala mu yërëm leen jéggal leen ay nit nekk fa di yuuxu di pëccëxoo et cetera et cetera loolu lu war a mën a bàyyi xel lu war a lu war a mat a bàyyi xel la ndax Kurusul kanga ka nga xamanteni ni mom nga jakarlo da wax ak mom wara man rus ka nga xamanteni ni mom dafa laqku wuy ji boromam mm-hmm. bërëb boo xamante ne ni beurep buñ wara ñaané la ci tamit japp na ne buñ demoon ba war ko tal manam buñ demee bañ dañ koy tal aussi ne desul loolu mo war lool rek mo waron nek solution waruñ ko mën talé ci biir sekk ya ndax ñak worma dafay dugg su boobaa ci ci lima li xalaat di ko taal si si sëkk yoo ni ay nit ñu ragal yàlla bor ñu ragal borom bi subhanahu wa taala ñu ngi fa tëdd di ko taal ci bërëb boo xamanteni ni ñoo xamanteni ni amaana la liggéeyal borom bi subhanahu wa taala et cetera et cetera donc yooyu noonu yëpp dafay aaju kenn ku nekk si ñu posé wu set ke maanaam laaj boppam ne lii nii su nekkoonte ne man maanaam situation bi fekke naa ko man naka laa ci taxawee yooyu noonu yëpp nag kenn du ci demee xel ndax su fekkente ne comme ni ma ko waxee sànq ñu ngi ciy demee xel rek dafay mujjee jur jiyee jiye boo xamante ni euh, amaana rëccu moo si toog. suñu ji xanaa di wax ci lii nga xam ne moo am rek euh, bëgg nañ ca développé sax waaye waxtu jàng moo jot kon ñu gën cee xuus lii moom wax dëgg yàlla yéeme na yéeme goo xam ne ñëpp war nañ cee bàyyi xel. góor jigen mom li war moy bi muy dundu ñu jakarlo ak moom donte dafa jar ñu ak mom sax ñu def ko ay suñu rayante ak mom tay par exemple mu donon góor jigen ñu jakarlo ak mom ci bi muy dundu ba ray ko wan ñepp publiquement ne diw mi ray ne buñ pare dañ ko wara sang dañ ko wara sang dañ ko wara a dañ ko wara a armée jullit waaw bu fekkee ne ab jullit la woon suñ paree dañ ko war a suul ci armeelu jullit ñi dañ ko war a defal lépp lu ñuy defal ab jullit manees naa woo nag koo xam ne da ku lompañ la maanaam bañ woo kilifa gu mag mujj ko jiit ñu woo koo xam ne ku lompañ la euh, maanaam koo xam ne amul amul dayo daal amul dayo ci ci amul solo lool soo ko defee ñu woo ko mu ñëw jullee ko ñu waajal ko denc waaye dañ ko war a denc lak nit ci diine lak nit ci diine loolu daganut julit nit ku faatu kenn wurta daggati ay cëram di ko sànni kenn wurut koo lakk comme nii loolu moom lislaam digaluñu ko digaluñu benn yoon ni lak nit kon nag jar naa bàyyi xel jat mat naa bàyyi xel bu baax baax baax baax baax rawatina koo xam dañ ko sul ba noppi nga sulliwaat ko euh, ba pare doo doo ko doo ko doo ko doo ko nak suñu état war nañ jóg comme xam nañ ni ndax lii mën naa jur lu rëy mën naa jur lu bare bare de lii ñu def nii fi mu nii bu mën jur lu bare tey kii mën naa nekk koo borom askan lo woo xam ne maanaam mën nañoo néew doole wala nangam ak nangam waaye tey bu par exemple rek bu dafa bokkoon ci askan woo xam askan wu rëy la ah woo xam yaatu la par exemple ñu génnee ko ñu xam ne diw sàngam moom lañ génnee nii lakk ko maanaam imaginer loolu lim mën a jur bu ñooñu bu mbokki ñooñu ñëwoon résister imaginer loolu lu mu mën a jur moo tax état bi war na cee war na cee taxawaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax euh, góor jigéen nag comme suñu culture bëgg ko te suñu diine nanguwu ko loolu état moo ci war a jël responsabilité bu mag boo xam ne képp koo xam ne gis neen la nga doon góor jigéen ci réew mi ñu teg la daan sanction boo xam ne buñ paree ci yow képp koo xam ne gisati na maanaam gisati na ab góor jigéen dana ko teggi yàlla na suñu borom doole taxaw ñun ñëpp te dolli noo kàttanal te dolli noo aar dolli noo sàmm ba lépp loo xam ne ak njub la ñu ne ci lépp loo xam ne ak ndëngte la suñu borom musal ñu ci moom mi nga xam ne mooy aji mucc laa ko ji. amin amin euh, yaa oustaz euh, Ndour ak euh, Mouhamed Bachir Mouhamed dafa mel ni dafa bëgg ñëwaat Mouhamed. <laughs> Euh, salaamaaleykum maa ngi jégalu waat ma dugaat dama suivre vidéo bi léegi euh, mooy bi ñu dugal nii euh, daanaka yeggaliwu ma ko sax waaye ci njëlbeenu kàddu waa ji mu ngi wax ne bañ ko yëgalee kilifa ga kilifa ga moom moo joxe ndigal mm-hmm. waaw kilifa ga moom moo joxe ndigal léegi foofu noonu nag waroon naa mën a am ab taxaw seetlu kilifa ga ban façon ndigal la joxe ndax ndigalu sulli la teg ci taal ko wala ndigalu suli ko génne ko sëg yóbbu ko ci àll ba mhm. loolu lu mat a bàyyi xel na ndax li si li ma comme li ma wax ci kaw rek sànq mais mosuma dee gis si li ma jàng boog ak ci li ma gis ak li ma jot a dund mosuma dégg ne ñu ne góor jigéen suul suul nañ ko ci almer sulli nañ ko taal nañ ko mhm. loolu nag ñi nga xamante ne ni ñoom la seen xam-xam màcc ci mbirum investigation ak gëstu maanaam journaliste yi war nañ see mën a def ab jéego. Mm-hmm. laajte ngir leeral sëriñ bi maanaam kilifa ga joxe ndigal. Mm-hmm. gan ndigal la joxe ndax ndigalu sulli ko tàll la ndax gan ndigal la joxe. ndax ndigal sulli ko tàll wala nga ndigal la joxe man nag góor jigéen la ma jàppoon la ma jàppoon mooy la gaayee def am nañu raison ndekete mbir mi am na ay xam-xam yu ci yu ci yu ci laxasu donc euh, bu fekkente ni xam naa ne li ci des dañ koy bàyyi am na am na xaaral ñu jël suñu internet yaa oustaz Mouhamadou Booba Diallo asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi rafetlu débat bi man nag lu ma gën a yéem si affaire bi. Mhm. góor jigéen ñu ne jullit la. Mhm. man loolu man moo ma ko quoi. parce que si majorité bi góor jigéen man de yi ma jot a gis fii du du ñu julli. Mhm. dañuy naan seen sangara dañuy doroge wu dañuy dem jaay seen bopp te ay patron yi patron yi la ñuy la ci la ñuy gisal. doo sax jege ba naan da nga leen di jéem a def dara parce que ñoom état da leen a soutenir. donc euh, tubaab yi bëggoon nañ sax ñu valider homosexuel si Afrique mais bu ñu nee bu dee jullit la nañ ko jullee si c'est là c'est comme ça góor jigéen naka lay nekkee jullit ak góor jigéen naka lay nekkee man loolu man moo a njëkk a yéemu quoi. ay ci xam naa ni foofu la ñuy yem li des ñu daal di koy bàyyee suñu mbokku internautes yi commentaire yaa ngi noonu ñii d'accord nañ ni góor jigéen dañ ko war a jël euh, sangu ko. Euh, jullee ko duñ ko suul ci armeelu jullit waaye kenn waru ko taal ñii yenn ci borom xam-xam yi daan ni góor jigéen naka lay nekkee jullit ba ñu war ko mën a considérer ba di ko jullee la ca des nag dañ koy bàyyeek suñu mbokku internet ci commentaire yi borom xam-xam yi ñu wax ni rek la ci diine wax ñu bàyyi leen ak laaj boobu di leen wax ni wéy leen di abonné chaîne bi chaîne d'actualité la